am na la xew de Madické Niang wenn démb ñëpp télé yëpp wane nañ ko ah. gis nga ñu doon wax ay Madické Niang ay pion Macky Sall la yooyu démb lañ découragé ah. ñu bari nee nañu astafurlaa ndekete Madické Niang kat caaxaanul boppam lay liggéeyal ah, xam nga ko gars yi ne fan la jaar ba parrainage mais démb lu yàq lu mel na xeme Macky Sall kañ lam xool Madické Niang jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñu ngi am mbégte ak contentement tey bi ma ñëwee fii nga xam ne moom mooy siège u Khalifa Sall gis ñu toj ko ma koy ñaawlu nag ci kanamu yàlla di wax nag lii policiers yi nga xam ne ñoom nañuy jox ordre yi nañu bàyyi lii parce que ñoom tamit ay sénégalais lañu bu ñu dimbee seen kër dañuy doon ay sénégalais di sol sabadoor di sol di di sol slip ma tey sénégalais nañu ñii ñuy sànni lacrymogène ak lii ñuy def ni bu ñu ko nangu même bu fekkee ne sax loi dañ leen ko sant nañ leen ko def defin boo xam ne ëllëg duñ ci am lu ñaaw ndax ñi nga xam ne ñoom la ñuy sànni lacrymogène wala ñi nga xam ne ñu la ñuy tuur ndox mu tàng ay njaayeen nañu jóobeen mbengeen ay siir sant bu nekk mu nga ca police mu nga ca biir nit ñi policier du tarixa ay nit nañu rek ndeysaan kon dañu war a xam ne lii nga xam ne nañ leen di def loolu dañu lànk bañ te président Macky Sall nag jot nañu wax ak moom ndax Macky bu fekkee ne day bandi bandi lu dina xam ne nag eh, ñu nag xam nañu ndax ñun xam nañu parce que ñaar ñoo am benn duñu nangu Khalifa Sall ñu gàntal li nga xam ne moom mooy candidature am ak sama raq sama frère di Karim Wade pourquoi ñu koy bañal pourquoi ñu koy bañal du yoon Macky Sall nag jot na pour ñu wax a yow ah te wax ak yow nag xam nga mooy wax ak yow mooy jàkkaarloog yow amoo loo xam ne ñun waaw nga ne. ma ah, da maa topp ndeke yaa may dégg li nga xam ne moom laa bëgg wax ak président Macky Sall mooy mu xam ñaar. mooy benn ñun duñ ko may dara ñaar mooy candidature Khalifa Sall bi na ko indiwaat ak candidature Karim Wade na ko indiwaat xale yi wax na barki démb dëgg la parce que bu ñu toogee ci bureau yi ah. di conférence di waxtaan di def ay point de presse te bañ a jàll ci terrain bi jël seen buuxu ko jël fii di dooru mu dal suñu kaw ñu buux avancé duñu wax am li ñu te eh, Adja Khoudia yooyu bokkoo ci yow moom loolu mun ngaa toog parce que loolu tamit sa yoon nekku si su ko defee ñun ñi nga xam ne ñooy chef de parti yi ñun ñoo mën a génn affronter li nga xam ne moom mooy policiers yi ndax xale yi li ñu wax dëgg la li xale yi wax dëgg la li xale yi wax mooy dëgg bu ñu toogee ci bureau yi loolu du day loolu loolu loolu avancé yaa may dégg loolu mooy yoon déedéet yow sa kàddu du fii yow xaar ba nga nekk première dame su ko defee ñun ñëpp ñu xam ne réew mi benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar waaye président Macky Sall dina xam ne ñun la ko seqal ñun dañuy bañ est-ce que c'est ça ragal ay du ay liif mënuñu koo ragal yow ñan nga fekk bu fekkee dañ ñoo dóor liif ba maari day daan am gàcce Macky Sall la dëgg la ñun ñëpp soj nañu lacrymogène la la ay pëndax ay puud ay sànni rek ñu noyyi ko mu jeex waaye toog ci bureau yi comme ça comme si loolu yooyu lan may ma benn kàddu ci lan da ngay xaar ba Marème Faye wax nga tontu ko mën naa wax ak leader yi su ko defee am jom am Pastef ànd ak ñi nga xam ne ñoom la ñu war a àndal song ñi nga xam ne moom ñu war a song ndax duñu ay tapet te dañu war a xam ne Macky Sall góor la ñuy góor kon ragaluñu ko yow li mooy lan da ngay bàyyi ku la woo. kër kër ba fu nga dem nga taxaw fa bu ñu sànni la ko ba joxe ñoom ngay fecc.